asalaamualeykum waa Sénégal maa ngi nuyoo di ziar ñëpp di baal ak ñëpp tey baalu ñëpp ak dafa sew mën nga ko yoral doomu aadama te doo ko xam moo tax képp ku ma baal naa la di baalu ñëpp di ziar di nuyu waa bitim réew waa diaspora bi sama xarit yu am jom yooyu sama xarit yu am fulla yooyu sama xarit yu diiñ yooyu xarit yi nga xam ni xam nañ ne jom mooy tukki waaye fullaay ñibbisi maa ngi leen di ziar di leen nuyu di kilifa diina yi nekk ci réew mi di wax nañ ñu ngi tàllal suñuy loxo ngir ngeen dolli ñaan ndax nag sama waxu barki démb ak démb mooy sama waxi tey Sénégal gii kilifa diine yi ñoo ko téye artistes yi téye wuñ ko woykat yi téye wuñ ko politiciens yi téye wuñ ko seeni ñaan yéen ñii kilifa diine ak seeni kurus moo téye réew mi kon doole leen ñaan ndax réew mi soxla na ko jàmm la paix rien que la loolu rek la ñu soxla ndax bu jàmm amee lépp am Sénégal moo beau pays ñu xam ñu ci ngor xam ñu ci dignité adduna bi dëkk boo mënta dem yëkkati sa passeport ca kaw na sénégalais nga ñu naw la ñu fonk la lan moo tax loolu suñu tolérance suñu civilisation ñun peuple bu civilisé lañu peuple bu xam peuple bu intelligent peuple bu muus bu xam fu muy jëm xam fu muy teg ay tànkam peuple bi nga xam ne quatre-vingt-dix-neuf pour cent yi ci siraatal mustaqim dong la ñuy dox noonu la ñu nawee quatre cent ans ci ginnaaw ba tubaab yi ñëwee Sénégal ba tubaab yi ñëwee Afrique Sénégal lañ gën a fonk moom lañ njëkk a fonk lan moo tax ndax ba ñu créé théâtre yóbbu ko ci école William Ponty dañu dem xool théâtre de réaction la woon ñu doon xool sénégalais nan la ñuy dundee ñu andi fa ay lekk yu bon di xool est-ce que dinañ ko lekk wala duñ ko lekk Sénégal yi dañoo taxaw fii diggante sëb yi bari ñi ndar gore ak ndakaaru gii ne leen lii de bu ngeen ko joxoon suñu rabu àll sax duñ ko lekk waxuma la ñun ñii di ay nit kon dañoo yàgg civilisé loolu la ñu xamee ngal la buñ ko yàq loolu la ñu nawee ngal la buñ ko yàq kon kilifa yi ñaanal leen ñu jàmm ñaanal leen ñu salaam l'Afrique a ses mystères le Sénégal a ses marabouts Jojo aussi à ses marabouts ma invité waat sama xarit sama sëriñ waaye nag ruus naa ko wala ragal naa ko wax sama rak ndax nag bu at ya néewee ay lay yéwén loolu zahir la rek waaye baatin ak bari at ndax la mu xam xale du ko xam nga ñëw fi ñëw fi ñëwati fi ñëwaat fi tey Cheikh Hakim dalal ak jàmm. nga nuyu sénégalais yi. waaye tey bu weex nga andi de tey <laughs> nga woote. Mhm. kon nuyool. auzu <laughs> billahi mina shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim rabbi srah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdata min lisaani

di ko ñaanal ñu ma àndal ñëpp tamit bu baax di nuyu seen fii ñu fekk fii ñëpp di kontaan ci saay su ne ci yow ci say jàkkaaroog yow ci sa image kër sa kër la waaw loolu moom xam nañ ko moo tax du dem fenn fii saa yu ne damay wax ne mm-hmm. suñu image waaye ku ko bëgg a gis boo fi fii waaye doo ñu gis doo ko gis waaw wallaay loolu nag dafay nekk loo xamante ni xam-xam bu suñu borom def ci ñun mm-hmm. waaye boo xamante ni nekkut tëb di wax yar moo koy maye mm-hmm. ak dal Mm-hmm. xam-xam nekkul maa fëgg sama dënn maa man lii maa man lii maa man lii déedéet. Mm-hmm. li nga man tànk yaa ngi wane ay preuve wala yaa ngi def suñ borom di def muy gis rek. Mm-hmm. suñ borom moo la suturaal. moo tax saa yu ne dama koy wax du ma jël méthode benn sëriñ. suñu mbiru bopp la ñuy jël. da nga may gis ma yoru téere du ma ko def. da ngay gis ma tegi ay ay bind du ma ko def. lépp mu ngi ci bopp bi. ndeysaan ay xale yu ndaw leen. loo xamante ni suñu bopp. seex ba heure bi waruñu dem di nekk ay fooy tim ay fooy di bind wala di ñëw di kamatra déedéet lépp ngi bopp loo ñu laaj mu bopp loolu mooy xam-xam alhamdulilah waaw xam-xam nekkul jël fooy tim di wax wala leen ak leen déedéet ndeysaan waaw kon yaan yàlla defal ñu jàmm pour ñëpp yeewu si loolu jërëjëf kilifa gi incha allah kilifa gi mhm. ñeenti mbir a tax ma woow la fi mhm. maa la woowaat de dëgg ne la ñëwal ndax dafa am lu ma dégg mhm. benn bi ma dégg ne da ngay dem bitim réew lu ci mel ni ay Angleterre. xam naa ne nag ku bëgg Gambie nga dinañ ci waxtaan. xaw ma tax gàmbi yee la war a yóbbu Angleterre wala. nga war a def benn tournée internationale. ma bëgg ñu waxtaan ci parce que nag. njëriñu émission bi. dafa war a feeñ. dëgg la njëriñu émission bi mooy ñi nga xam ne jotewuñu ci yow wala mënuñoo ñëw ci réew mi nga fekk ji leen. wala ñu gis la xam fii ci émission bi que da ngay ñëw ñu xam fu ñu lay fekk. lii mooy njëriñu émission bi. ku fa dem am aajo ñëw fekk si la nga fajal ko ndax man gëm naa la wóolu naa la dëgg dëgg la neexaloo ma fayoo ma euh, euh, ma lem joxoo ma suukar lii tax émission bi jóg pour askan wi moo tax fu ma jógee rek woo la ndax njëriñu askan wi la muy benn dinañ waxtaan ci tournée boobu ñaareel bi loo xam ni da ci bëri xam lool parce que damay waxtaan ak yow yenn saa yi dañu watante téléphone di waxtaan maanaam bu man nag sama xel bi daf maa wër damay waxtaan ak yow fekk maa ngi bind livre ma xam ni kii dafa mel ni dafa bëri xam-xam lool ci liggéey nit da nga xam lu bari liggéeyante bi am ci réew mi liggéeyante bu am bitim réew dangay ngay gis ku jógee fii sax dem bitim réew daane doole ñu liggéey ko ba du dellu siwaat fii ci réew mi bari na fi ma xam ne yow loolu bari nga ca xam-xam maanaam muy ñaareel bi tax ñu bëgg ñu waxtaan ci. ñetteel ba koo xam ne dañ laa liggéey nga toj liggéey bi. naka lañ ko mën a tojee. ndax possible nañu toj liggéey bi wala possible wala liggéey ndax war na mën a jàpp doomu aadama am déet. ñeenteel bi muy sama problème bopp di sama komba di sama xeexu bopp muy noob. bëgguma kon ànduma ci. ñu waxtaanee ci. juróomeel bi muy politique bi nga xam ne moo lëmbe réew mi. dañ ci waxtaan. en tant que nit ak nit. en tant que doomu sénégalais ak doomu sénégalais. Mara. ñan ñoo la yóbbu Angleterre Gambien yi wala ñan. ak Angleterre rek nga yem. wala di nga dugg France. di nga dugg Allemagne. di nga dugg Belgique. di nga dugg euh, euh, New York. il faut ñu wax ci loolu pour ñin ñi xam ne kii mi ngi ñëw ak ban période la war a ñëw ci moom foofu foofu Mara. Gambien yi nag xam naa ne moom. tey waaye la de. dëgg la lu mm-hmm. ñoo la yóbbu. waaw <laughs> non xam nga. waaw Gambie moom. waaye dama leen nuyu di leen ziar saa su ne dama koy wax. Mhm. dama yàgg ak ñoom. di nuyu bu baax ñu nekk Gambie wes fii basi seen waaye ma seen first lady bi. ak ah, ñi waaw first bu Gambie ak ak ñeneen ak ñëpp. waaw mën naa wax ne secret la mais Gambie yi bokk nañ ci ñu gën a tax pour ma. war a génn ma war a génn. Mhm. man man dama koy wax benn saa su ne. man ñetti mbir su ma neexoon dama naan saay sama numéro bu kenn bind. ah ndax waaw ndax benn. damay wax ne lu ma yore du ay caaxaan. kafe wu ma ko doomu aadama. Mhm. man nit boo mu wooyee sax wax ma loo xamante ni waxtaan ba aw ma jot waxtaan bu yàgg. Mhm. aw ma jot waxtaan bu yàgg. ko mhm. amul jot toog ak ay mbokkam wala amul jot dem bay nekk soxnaam wala dara. kon kooku fullaal na lu muy def. yow mu may woon a boo ma fullaalut man du ma mën a continuer ci. pour ñu a wax ci wax ji. dëgg la yow ca sa aajo nga may ñëw moo man laa ñëwal. Mm-hmm. waaw kon nag loolu moo tax benn tournée internationale bi daal. waaw nañ ci dem réew yi bëree bëri bëri. Ah. ci Angleterre rek. may ma ci yeneen dëkk yu ci des yeneen yëpp. d' naa ci kattan yàlla allah. incha allah marabu. Mm-hmm. loolu dafa baax. Mm-hmm. gis nga àdduna. buy dox da dox di ànd ak moom. bu njëkkoon. possibilité amul woon ci ñi mel ni yéen ñu ñëw ci télé yi. parce que benn télé fi amoon. léegi télé yi dañoo bari. wallaay dëgg la ñu tëgg biir néegam sax ibbi télé bi. Mm-hmm. lii am jamono jii ba amoon bu njëkk ba. Mm-hmm. sëriñ njëkk ya génn. wallaay. que doo am sa xam-xam sa biir néeg nit ñi fekk la fa. luñ mm-hmm. la xam ba la fay fekk di. te bu fekkee yàlla yow la ko jagleel man jagleeluma ko man. waaye sa xam-xam boobu nga dëxañoo ko téye ko doo jëriñu. ba pare di nga ko laaj ak suñu borom. wallaay. ndax dafa war a jëriñ doomu aadama yi jox la ko pour yow. mais pour doomu aadama yi moo tax mu jox la ko. kon Mara man bëgg naa. bitim réew boobu ñu fësal ko. ndax nag ñoom dañ dañuy bëgg ñaan. mais mënuñoo ñëw am na ñoo xam ne amaguñu kayit. dëgg la mënuñoo ñëw. am na ñaan yoo xam ne dalul xel. woo sëriñ mu ñaanal la rek jox ko benn GP rek. GP ba yóbbul la ko. sëriñ ba sax ci téléphone la lay waxee noo ko usé. mën na fekk yaa ngi ci usine ba di liggéey mhm. bu boobaa doo xam sax sëriñ bi lu mu la wax ne bii njolloor nga ko war a sangoog timis nga ko war a sangoog wala geng doo ko comprendre kon sëriñ bi tey boo amee possibilité dugg avion dem ca ñoom mhm. dal fu am maanaa mhm. ñoom ñu ñëw fekk sa nga faj seen aajo maaraam muy yow muy say fukki morom yu wóolu seen bopp laa wax nag kooku ci mën a def demal wallaay te ku ciy demet ñëwal ci télé yi ñu xam ne da ngay def tournée internationale gars yi mën a xam fu ñu lay fekk loolu c'est très important pour moi kon Mara loolu dama koy tëjeewaat ndax il faut ñu joxe mois bi soit mars la wala mais la wala juin la il faut ñu joxe mois bi incha allah incha allah mais li tax nag ma gën a bëgg nga ñëw mooy liggéey mhm. maanaam nit dafa forde wallaay wallaay parce que man jànguma sama jàng soriwul mais li ma dégg yàlla li mu sàkk yëpp doomu aadama la ci gën a fonk mhm. kon yàlla sàkk na jinne sàkk na malaaka sàkk na ay mala sàkk waaye loolu yëpp doomu adama la ci gën a fonk mm-hmm. léegi yàlla fonk doomu fonk googu fonk doomu aadama mm-hmm. ak li mu def ci doomu aadama mm-hmm. est-ce que possible na sëriñ liggéey nit mu jàng est-ce que mën na nekk parce que man parfois dama naa non non mënul nekk quoi ay liggéey la sëriñ bee ko sànni korte sànni korte wala moo ko def lii est-ce que loolu mën na nekk ci nit waaw liggéey moom mën na nekk lu mën a nekk la. nga liggéey nit mu jàpp. nga liggéey nit mu jàpp ñu mën a nekk mooy loolu mooy lu mën a nekk la waaye loolu lu war a loolu Cheikh ñàkk am gàllaaj mm-hmm. mm. li tax nit ñu koy liggéey nit ki dafa amul gàllaaj waaye te nit ku jàpp ne tamit kenn du la ma mënu laa liggéey mënul nekk nit moom saasu ne wàllu liggéey nit dafa bëri ay ay méthode liggéey yoo xam ne koy def nit. Mm. waaw. comme yan. tey am na koo xamante ni. Mm. waaye dañuy jël benn yëreem yóbbu ko ci sëriñ waaw def ci luñ ciy def suul ko ci bàmmeel yu yéeme waaw jël may te yëre boobu mu sol waaye da si ñaqam moo si nekk moo tax dafa mel ni tey nopp yooyu def nit mu naan ko ak ñaq ñooyam même soos la ndax ci yaram la jógee ko waaw da gis kooku da koy jël liggéey ko liggéey boo xamante ni tey ñett affaire si am ci bàmmeel bu koy def ci bàmmeel la koy def lan la war a doon liggéey mën na nekk liggéey boo ni day faatu wala day am tawat yaram boo xamante ni moom. faatu rek koy tax a jóg. wala paralysé wala nit ki du yarate dara ci àddina. mooy liggéey bu gën a sedd moom mooy nga faatu liggéey bu gën a sedd mooy faatu waaw yow ñaata nit ngay gis ñu amoon alal mënatu ñoo yor dara ñu liggéey leen dem ñu perte lépp. pour yow loolu liggéey la. liggéey la bëri na si. man xam naa suñu waxee ay liggéey ñaata nit nga gis ñu dem ba Europe nekk ci poste yu baax di liggéey mhm. amoon kër fii seen mbokk yi liggéey leen wala nit liggéey leen moom waaye ba ba mënatunoo ñëw benn senegal teg si tamit liggéey ban amoon foofu day yàqu mhm. mooy duñ yaratu dara ñoom ngay romb ci mbedd yi ñuy tux di naan koo si laaj am na këram gu baax foofu mhm. ñaata nit nga gis foofu tamit mënta foofu lay nekk ba nu nekk fa am fa mën na fa am 40 ans mënta mënoo xam lu mu am. Mm-hmm. mënoo xam lu mu a réalisé fii ci dëkkam. Mm-hmm. loolu lu koy waral mooy liggéey yoo xamante ni nit moo koy def. tey tey da ngay gis koo xamante ni Cheikh day toog ba guddi fit bi di rëf-rëfi. Mm-hmm. wala mu toog ba guddi santir benn yaramam fii ni di tàng jëm kaw. yooyu ay liggéey la. wala sa xaaj bopp bi di métti. lu bëree bëri bëri xaaj bopp bi di métti di. jàpp xaaj bopp bi xaaj bopp bi. loolu di liggéey la loolu tamit liggéey la. wala nit ki di jékki-jékki di yomb mer wala nit ki ci boppam liggéey bu mu dem rek mën faa yàgg waaw wala nga gis tey koo xamante ni Cheikh da nga koy liggéey liggéey yu yéemu yoo xamante ni da nga koy liggéey saa ci tali day dox rek hmm? waaw da nga koy liggéey ci tali mën nga sàcc dàllam def si liñ ciy def boole koog mbaam sëf boo xamante ni waaye da nga ko yeewi. Hmm, hmm, nga jël ko. yu yéeme yéeme yéeme yoo xam ne da ko siy def su pare liggéey yooyu bu ñu ko jëlee ba pare waaye yenn yi da koy jël yóbbu ko ba ci benn sele ba yoon wala intersection yu mel noonu ñu waaye bàyyi ko fa. te day jàpp. waaw ma ma fu mu jaar day jàpp. non mais xam nga xam nga lu ma bëgg xam nga man. Mara. Mm-hmm, mm-hmm. alxuraan la li ah, parce que alxuraan. Mm-hmm. ci li ma xam mooy amut lu bon. dëgg la waaw. te li ngay wax nii lu bon la. léegi loolu liggéey bi lan la ñoom ci alxuraan la ñu jël boole ko ay affaire mhm. wala xam-xam bu ñuul la wala lan la mhm. waaw non alxuraan lépp ci nekk soo si buggee baax baax boo ci bëggee bon bon waaw loo gis mu def nii bu la neexee nga contrer ko dëppaat ko waaw tey bu aay alxuraan bi wàccee nii nga hmm. commencé waat fa aay bu dëppee nga jëmaat ci kaw loolu mooy juutal nit ki hmm? nit ki nekkoon ci kaw nga dipër ni ko ba nekkaat benn zéro waaw ah, wala nga jëlee ko ci kaw wala am na su yoo nit ki boo ko bëggee defloo sax am na su ñoo xam ñu gën a bon mooy waaye dañuy sant ay xale ñu simmee ko ba set di bind mu tëju ci néeg bi kenn du ko gis simmee ko ba set di bind li muy bind. su paree lu muy bind noonu su paree ba ba def ko pour nit la pour yàq nit yàq nit ki moo tax da ngay dégg yaa gis nit ku simmee ko ci simmee ko yaramu neen di dox di dem. dof dof di dem. waaw wala nga gis koo xamante ni ci ci bureau lay nekk di liggéey. day jékki-jékki rek jël ay bagages am dem du xam lan la wala mu jékki-jékki di absenté wu nawtal ko nawtal bi tamit yenn waaye dañuy jël benn garab gu wadd ci benn garab goo xamante ni daa wadd saa lu mel tey ci kaw tali la wadd waaw xam nga garab gu wadd ci kaw tali tey nga jël ko am yoo si booleeg moom liggéey si liñ ciy liggéey ay fas soo paree benn jël ko takk ko ci benn garab mi windeelu Ah, waaw wala nga lay def noonu rek lay def mooy du toog benn place te kooku fu mu dem mooy day ñëwaat ngelaw gu ko ëpp mu mu dépasse mu dépasse ak yeneen yeneen ak liggéey yoo xamante liggéey sës mooy sa jëkkër kattanu nguuraam mooy du man dara wala nga gis ñaari jëkkër ak jabar benn nga gis mooy mooy moom day takk ñaareel rek moo ñu liggéey ko. Hmm. liggéey boo xamante ni biir bi feebar moo ci nekk feebar bu yàgg. boo xamante ni fii ba suba waaye lu mu lekk du res. Hmm. waaw yu bëree bëri yoo xamante ni moo si nekk. ay sëf sëf. am na sëf a am na sëf. waaye nit nag mënoo koo sëf mu gaaw a jàpp. Hmm. waaw. Hmm. ba si nopp sëf nit du gaaw a jàpp ndax yàlla lu bind doomu aadama moo ko ci gënal. waaw nit lii tax muy gaaw a jàpp ñaar affaire am. dañuy sàcc sàcc saa sa yére wala ñu sàcc mooy sa dàll wala ñu sàcc lu taq ci yow mais yàlla lu mu neen doomu aadama am si. moom si gënal te doomu aadama yàlla da ko may kattan waaye tant que sàccoo ci me ci melokaanam. wala ci daraam mënoo koo gaaw a jàpp. mënoo koo gaaw a jàpp da ngay ko gaaw a jàpp. waaye boo jëlee ci yooyu ma la wax foo ko defee dara day jàpp. boo sàccee dara ci moom jël ci nga wax ne boo defee dara day jàpp. boo boo ko defee day jàpp. ndax ñaqam moo si tax moo si des. moo tax bu fekkee nag bu fekkee mu nekk sëriñ bu aay. bu fekkee nekk xamul dara rek day def ba suba du jàpp. léegi Mara. Mara. Mm-hmm. comme tey lan mooy sànni korte waaw xam nga benn affaire bu ñu lay sànni la. Mhm. wala benn fitt la. wala nan la ñuy defee sànni korte korte. waaw korte dafa naan ay dañ koo sànni <clears throat> ma nga Amérique yow yaa ngi fii Sénégal ne dañ koo sànni korte. waaw ñu bëri ñu ngi wax mais xamul lii korte. luy korte waaw kay. tey nag laa lay wax lii korte. tey mu neex de bëgg naa koo xam de. waaw dañ laa sànni korte. man pour man affaire benn bu ñu lay sànni bu dal la rek. waaw waaw mën na nekk fitt ba tey waaye bokkul. gis nga bu buñ ko sànnee nit du def waxtu te nit ki daful effet ndax balaa korte bu la koy esewel waaye dañuy fekk benn benn garab gu tooy xepp ñu dóor ci lu ñu ciy dóor mais garab gi day wow kong ba daanu waaw loolu mooy doolee korte te korte bëri na ñu naan la bind la ay déeret ay tal mu jinne la ay ay waaye dañ lay booleeg benn rawxaanu jinne boo xamante ni day nekk jinne benn soyaatiin kon moo tax foo mënta nekk mën na la faa fekk foo mënta nekk da la fay fekk mook benn woot ñooyam ak nawtal nit ñooyam yooyu nit ki dafa sori da nga koy booleeg lu mel lu mel ni benn rawaanu jinne si nga ko mën a booleeg moom mu xëcc ko ndax benn faw nga jàpp rawxaanam boole ko rawxaan boobu xeex moom xëcc ko ci saa si dóor ko affaire bi waaw yenn saa da gis ko tëdd ci néeg toog ba si yàgg mel ni benn ngelaw dafa dugg ci néegam te te néeg bi yëpp a ngi fermé wu. mooy xam fekk liggéey bu ñu koy def la. waaw wala yenn nga gis ni nit koo xamante ni da nga koy booleeg benn tali bi day jege ba si yàgg rek otom bi këpp. moto du xam lu koy def. loolu yëpp korte la. yooyu mais korte moom bëri na korte bu la ko dóoree mooy sa xaaj yaram bi mooy du nekkati man ngaa paralysé si gën a ndaw nag waaw. waaw mooy sa yaram bi day dee da ngay mel ku sees ku ñu tegal sees rek. li nga wax mooy comme li nga wax mooy comme ku nekk tey France. Mm-hmm. sëriñ bi nekk fi Sénégal. waaw mu xam ne joteewul ci kooku. Mhm. ra rawaxaanam lay lay lef lan nga ne. ko korte bi. Mhm. mooy day jël benn rawaanam jàpp ko ba pare ndax nit ki tant que jàppoo rawaanam fekkee ko sori faaw nga jàpp rawaanam ko fenn moo tax nit ku nekk dal fexe di am jàpp. mais rawaan lan la bañ koy jàpp di ko tëj fenn lan la jëmm la wala lan la esprit la wala lan la. déedéet waaye rawaxaan dafa mel ni tey nit kuy dox te amoo takk ndeer yooyu yow boo nëppee gis sa takk ndeer da ngaa faatu. maa di taal yi. non la mel. sama takk <laughs> day dimbale nit ki ci lu bëri mooy tax nit ki jékki-jékki ba si yàgg tëdd xalaat dara mu gis ko rawxaan ñëpp ko am muy sëriñ ñëpp ku mën doon waaw bi lenn la moom la rawaan def ci nit ki ah, ah, tey bu fekkee tey ngay sellal. Ah. jëm sa bopp lu bëree bari ma sa rawxaan moo lay wan mais bu fekkee doo sellal sobe rek ngay def pour nit jàpp la tamit dafay yomb. dafay yomb dafay yomb. léegi nag rawxaan moom mooy nekk loo xamante diggante benn mbir la boo xamante ni comme mooy lu loolu day wan ñëpp wa dalay wan ci say misaal lu bëree bëri bëri ci yow nga tëdd dara mu lay wan loolu yëpp sa raw waa sa rawxaan moo lay wan mm-hmm. waaw waaye rawxaan nekkul loo xam ne dañuy jàkkaaroo moom jëxëran déedéet kenn du ko xool gis ko kenn du ko làmb daj ko ko làmb daj ko waaye moo ci li ngay xalaat la wala li ngay tëdd mu lay wan wala loo xamante ngay dem mu ne la bul def lii nga force def ko soo pare ngeen lii nag nekkoon na ci man sànq loo xamante ni sànq maa ngi sikk sàkk naan li war naa ko def wala uh, waruma ko def fekk na loolu noonu waaye di waaye loolu mooy rawxaan bi waaye nekk lu ñuy gis nekk loo xamante ni nag ngay teg bët déedéet hmm. liy nekk ak nit ki di ànd ak nit ki la di dem waaw waaye rawxaan nag mën naa soppeeku tamit jëmm comme genre nit ñëwal la soppeeku benn mag bu baax wala soppeeku benn xale ñëwal la waaye di la dimbale waaw waaye boobaa day fekk nit ki ñu jàppoon ko ci liggéey wala ñu defoon ko dara waaye rawaxaanam bi fekk nekkutut ak moom nit bu la jàppee rek mooy sa rawaan nekkut ak yow waaw waaye bu la rawaan buggee dimbale dafay soppaleku waat mooy ku yiw lu seetlu ñëw ci yow man laa dimbale mën laa dimbali waaw d'accord kon daal léegi daal su ma comprendre li nga wax nii daal mhm. man li ma gëm naa ko jël teg fee nit mhm. kon sëriñ mën naa jàpp liggéey ko mu jàpp parce que man dama mos a gëm ne loolu mënul nekk. mën na nekk. mais tubaab bi la moo tax mënuñ leen liggéey ba mu jàpp. xam nga tey loolu léegi nag xam nga tey maanaa am problème bu mag tey. Mhm. sama xarit nga tey dañu waxtaan de. dëgg la mhm. xam nga kon tey. Mhm. Afrique wala ñun Sénégal fi bu ñu demee coupe du monde dañ ko war a gagné. waaw non loolu waaw mën ngeen leen a jàpp. yéen mën ngeen liggéey nit ngeen jàpp ko ba kii du mën a yëkkati tànkam loolu possible na. waaw waaw loolu loolu yëpp Cheikh am na wallahi gis nga cheikh fii lépp ci rawxaan la tënk lépp mu ngi tënk ci nit ki nga xam chiffre mën a calcul waaw ah, ah, daa faat dafa mel ni jamono ay passé ba nga ñëwee sama kër dama waxloo ci match bi depuis vingt heures ay kilifa ñëw toog waa waaw fekk naa leen waaw du bëgg naa ci ñëw sax suñu ñëwee ci ab kii ma xamante ni ñëw neen toog mën a leen match bi mën na nekk dëy bi mais waaye lenn mooy problème bi lii la mooy yëfi mooy faw benn ngeen xam ni ngeen mën a jàpp def pour gagner ak ni ngeen mën def ay sarax <laughs> ak loo xamante ni ni ngeen mën a jiitoo ci loolu léegi nag loolu moo nekkoon mbir yoo xamante xamuñ ko mais te boo mënul kalkin mënoo isaab mënoo xam nombre bis yi mhm. bu fekkee tey lu gën a gàtt ci maxi foofu sax mën nañ ko weesu wax ci leneen waaw ah, dinañ ci ñëw waaw dañu dañu ñëw ci loolu waaw dañu ñëw ci loolu man dama beneen damay ñëw ci loolu affaire football yeeg match yeeg mhm. politique bi yëpp dinañ ci ñëw après parce que mhm. fekk naa ko fa mais li ma doon bëgg ñu wax rek mooy ci liggéey bi nii possible na ok liggéey bi. xam nga xam nga Mara il faut que ngeen dimbali ñit ñi tamit ñuy bañ di ñëw ci yéen tout le temps. dëgg la. wala obligatoirement bu la liggéey jàppee. il faut ñu dem ci yéen seet seeti leen. non man moom man moom Cheikh. waaw soo bëggee dëgg-dëgg sama numéro wax naa ko sànq bu la neexee bu ko nit dugal. da koy dugal moom man moom mën naa maye ay mbir. yoo xamante ni ma ku la liggéey. waaw barke alxuraan karim du ko defati ci àddinaam. ndax man dama bëgguma ku liggéey bëgguma nit kuy def nit lu bon yu mel noonu waaye nag naa la wax code yi ngay jaar ba yooyu dañ. mën nañ la liggéey kon mu nekk sa yaram. nga dem ci comme lu ñu naan loxo lu loxo def loxo mën na koo dindi loolu loolu wax la wax ju bu tegu la bu tegu la lu wér mën nañu mën nañu toj liggéey ay kort ak lu man di doon nan nan lañ koy nan nan tey Cheikh man nit bu buñ la liggéeyee boo ñëwee wax ma ko ba ma xool ko waaye nag dama koy xool pare su ma ko xoolee ba xam. Ah. waaye ci liggéey bu la def. Hmm. cheikh lu gën a yomb ma toj liggéey lu méttee métti la ay mbir. Hmm. tey waaye dinaa dem fekk mbaam bu dee ba néew foofu mu dee mooy comme ni ngay rombee ci àll bi mbaam bu dee ba daf medd noonu fu mu tëdd ma tibb ci suuf si. waaw mooy suuf boobu di xaw niin. ma tibb ci suuf si wut garab gu wadd ci kaw tali. waaw ma jël ko. su ma jëlee loolu jël saar bu ñuy wax benn baraatun ma saar bu amul benn bisimilah rahmaani rahiim. Mhm. loo gis mu am mu am bisimilah rahmaani rahiim rek. dafa dafay nekk benn yërmande. Mhm. moo tax rahmaani rahiim ngeen tax mooy am mi nekk yërmande. Mhm. saar bu saar boobu amul. amul benn bisimilah rahmaani rahiim waaw. léegi nag boo bindee saar boobu boole koog yi waaye lii ma la wax boole kook benn garab goo xamante ni nit da see takk boppam ba xaru si. waaye loolu fa nit di gisee. am na. jaay la bëriwul ci réew mi. loolu am na fi ñu toll nii Cheikh loolu am na ñoo xam ne loolu dong la ñuy wër boo demee mbuur gi da nga fekk. garab goo xam ni da cee takk boppam dee. dee ci mi. wala nit koo xayti nit ki dafa wadd ci kaw daa nekkoon ci kaw gar wadd mi ci réew mi mbuur gi. boo demee Saly boo boo duggee mbuur. jëm côté benn zawal da nga ko gis. wala nga dugg Saalum wala ay côté Kaarang bi doon ci biir sax da nga la wax ma loo doon àll bi ak loo lan la. waaw waaw seex yooyu boo ko wutee ba jël ko waaye nag boo koy sangoo doo ko sangoo ci sa biir kër. doo ko sangoo. doo ko sangoo ci sa kër. waaw boo ko sangoo sa kër da nga rey say noon yu bëri. doo sangoo ci hmm. te boo koy sangoo ti montagne ngay taxaw wala nga dem géej dem foo xamante ni fu géej gi dafay benn biir wi. nga tax nga sangoo ko benn yoon. gis nga boo ko sangawee waaw waaw képp ku la liggéeyoon ci kaw tali bi nga koy gis wala mu takk boppam mu xaru wala benn mu dee dee boo xamante ni deewu mbedd. deew deew deew xaaraar deew bu ñàkk fula lay dee. bii mooy saar bi ngay wax. waaw moo nekk nii lii mooy benn saar bi. saar bi nga xam amul bisimilah rahmaani rahiim. waaw lii moo nekk benn bara atun. saar bi ngay dem. Mhm. bind ko boole ko ak euh, euh, garab boo xam nit day. <laughs> Hmm, takk boppam ba xaru. ak yeneen yooyu. ak fu mbaam dee nii. suuf soosu nga jël ko suuf soosu nga jël ko. waaye garab gu wadd ci kaw tali. waaw nga jël ko tamit. gis nga yooyu boo ko boolanteeg moom boole ko ak ay doomu kaane. am lim boo koy bool li nga am ci at. ngay wut doomu ah, kaana yi loolu faw nit ñi seet si la pour. loolu ah, wut doomu kaana yi. non loolu man loolu kenn mënu koo def man maa ngi xaw ma saar bi loolu kay mooy faw nga ñëw rek. non non man Cheikh yéen yi damay maye man yii. lii maye woo de Mara lii. ah non non non non si bëri lii du maye damay wax le man damay wax ne ñun amun temps waa sëriñ si bëri neen boo demee ci sëriñ bu baax boo def doon boo ko waxee waaye mu bindal la ko nga dem mu wutal la yooyu nga composition nga def ko. liggéey bi lay toj. liggéey bi moom ci saa si lay toj. waaye te ku la defoon foo jaar waaw dina na jéggalu si wala waaye waaye da nga ko jaale wala yow danga ca da ko dégg misaal boo xamante ni. muy dox ci mbedd bi muy dox ci mbedd bi dem waaw waaye te fàtte naa beneen bi muy am waaye day amaale mosa morso boo xamante ni mosa gumba wala mosa néew waaw yooyu yëpp da Cheikh wàllu toj liggéey warul yomb liggéeyante bi dafa bëri. dëgg la waaw wàllu toj liggéey nit ki waaye lépp lu ko jaral jéego bu bu nit ki def ba jaral ko xaalisam muy dem di la liggéey waaye na la jaral aajo ji toll noonu nga dem. dindi liggéey bi pour dindi liggéey bi waaw. Hmm. loolu waaye dala ko war a jaral waaye fekkee ne jaral loolu ko nag yow yaa xam na nga toog di xaar sa bopp. ndax nit. Hmm. at nag moo toll man dama man wàllu kaaraange ma si waxantu ay caaxaan. ndax man hmm. lu lu ko fonk koo xam ko fonk laa dama fonk dama ko fonk dama ko fonk man ay wàllu ibbeeku nii sax bëriwuma man lu ma koy def waaye kaaraange aw ma dara ay mbir yoo xamante ni man mën naa cee wax fii ba boobu laa si doon wax te amaan na beneen boo xamante ni tamit koo xamante ni dafa nekk Europe moo ñu liggéey la wala mel noonu mm-hmm. amaan na yeneen yoo xamante ni lenn koo xam nekkul fi ci réew mi nekkul nekkul fi ci dañ ko liggéey du mën a ñëw du mën a ñëw wala du mën a am këyit wala du fa am dara du fa am dara bu gën a yomb mooy lenn mooy cin saa yoo xëyee doomu aadama yëpp moo ci cin lañuy ñuy lekke wala ci bool wala yu mel noonu. léegi nag nooy def. waaw mooy yow dégg na làkk yëpp. waaw nit ñi ñoo foog ñu ñaan yàlla yombut. yomb na waaye yombul ci ku ko xamul. yàlla làkk yëpp dégg na dégg na français. dégg na làkk lépp lépp lépp yàlla suñu borom dégg maa la ko wax. nooy def mooy da ngay jël xotti cin bi mooy mu cin bu ñuy toggee. waaw ngay jël ci ginnaaw gi. nga bind cinq mille neuf cent quatre vingt quinze cinq mille ci lan. lim boobu rek nga ciy nga bind ko ci ginnaaw cin bi. nga bind cin bi. waaw soo ko si bindee pare nga bind sa tur ci kaw. nga bind sa a amin ibbi mim bi yaara amin yaara bala. problème bi di nekk nag. <laughs> parce que waa bitim réew ñu ngi lay seetaan. mën nañoo bind seen tur ci kaw bind cinq mille neuf cent quatre-vingt-quinze waaye ay ibbi miim beeg tëj miim beeg mm, même bu mënul mën nañ bind amin yaa rabbal alamin amin yaa rabbal alamin waaw amin yaa rabbal alamin waaw amin yaa rabbal alamin waaw léegi mën nañ ko bindee lu leen neex du arabe rek lañ ko war a bindee déedéet amin yaa rabbal alamin tey ñëpp mën nañ ko bindee français wala anglais waaw yàlla làkk yëpp dégg na ko ko ci waaw léegi boo ko si bindee pare mooy cin bi nanga koy teg ci benn safara ba mu tàng jër waaw boo tàngee nga fay ko ci ndox bi noonu jël ah, ma sangoo jël ndox bi sangoo lépp koo xamante mu ngi lekkee ci ab cin wala mu ngi lekkee ci yu mel noonu liggéey ba day këpp ci ko am te liggéey ba day nekk tàngoor boo xamante ni góom lay def ci moom. la ilaha très bien. mais te góom boobu gaaw wér. loolu neex na ma. ok kon sama mbokk yi nekk ci diaspora bi. Mm-hmm. am na fa de. Mm-hmm. man damay tukki damay gis. Mm-hmm. mës naa dox benn waaye na ma jojo doo ma may cinq euros ma jënd cigarette. mu ne ko saa waay yow yaa ngi bi fii bi digg Paris. amoo njëgu cigarette doo ñibbi. mu ne ma su ma mënoon ñibbi tey ñibbi li ma fi dëj ak lu tax mënumaa am dara dañ maa yàq. Mm-hmm. am na de. Mm-hmm. gars yi bi dimbali dañoo sonn. wallahi azim ndax mm-hmm. soxorante bi ne ci réew mi. da gis nit dem soit ay doomu bàyyi ngeen woon. moo fi gën a ëpp nag surtout nag doomu bàyyi doomu wujj yi. <laughs> mu liggéey la na ah ok doomam moo dem waaye du gën a tekk sama doom mi nekk fi de wala du fi ñëwaat mukk mu yàq la waa bitim réew sonn nañu lool ci loolu ci lu mel noonu lii moo waral lépp diaspora sénégalaise lii neex na ma euro CFA kon donc ñii dañoo mat a dimbali dëgg léegi lii bu leen dalee te xamuñu fu ñu koy dindee xamuñ fu ñu koy tojee ndax ñu trian yi wala sëriñ su bon yi di leen nax di lekk seen xaalis di lekk seen ba mujj gi ñu découragé. Mm-hmm. Mm-hmm. am na benn grand bu ma ci xam. Mm-hmm. Las Vegas la nekk. sama grand la ndeysaan. bi ma ko fekkee Las Vegas def na ma kaa ñu dem nga def shopping daa toog tegal a tànkam ne ma loo jënd ma fay. waaw ngay jënd ay dàll di jënd ay jiin grand bu njool ci kaw jantal. nice américain. ay deux mois ci ginnaaw grand bi mënatul wax. allah. bi ma woowee ne ma man la diw samay rongoñ dafa tuuru mu def ma appel vidéo ma xool ko samay rongoñ dafa tuuru. Mm-hmm. mu ne ma maay booy ma ne ko naam parce que gis nañ may def émission bi mm-hmm. dañu yaakaar ci man. moo tax nag sëriñ yi fiy nekk ngal la bu leen ma fontoo. dëgg mm-hmm. ni ngeen may sagal. parce que ñoom bu ñu gisee man may toog ak yéen. man la ñuy woo. may booy dañ maa yàq dañoo yàq sa grand boole ma kenn ku may faj mm-hmm. ku war a yàq grand boobu mm-hmm. kooku dafa baax mm-hmm. tey nag il faut nga wax ci mara xam nga Sénégal am na ñuy julli am na ñuy woor waaye gëmuñu yàlla de gëmuñu yoomal xeyam am na de wallaay parce que li ngay wax ni sëriñ koy defaa ah. loolu su loolu du mission sëriñ d'accord naa sax bu dee animiste yi nga xam ne ñu ngi ci àll beneen yi biir biir biir biir Burkina Faso ci àll yi c'est des animistes. ñooñu gëmuñu yàlla gëmuñu yëngatu gëmuñu dara. c'est des athées. Mhm. mën nañoo def loolu. Mhm. parce que ñooñu pour ñoom boo deewee jeex na yomal xeem amul. amul wallaay waaye yow mi nekk fii. Mhm. nga ne gëm nga yomal xeem ba pare def yenn yi. c'est injuste. du yoon. maanaam moo tax cinq mille quatre-vingt-quinze yooyu nañ ko bind ci ginnaaw cin bind ci seen tur bind ci amin ya rabbal alamin nga ne ñu teg cin bi def ci ndox waaw ba mu tàng jër ñu jël cin bi fayee ko sangoo ko wallahi lépp lu ñu leen defal mu deñ wallahi li nga maye ay milliards la yow soxoroo bonoo mais fi may dugg balaa may ñëw ci nopp Mara nee nga ma sëriñ mën na liggéey nit mu jàpp. nee nga ma sëriñ mën na liggéey nit sëriñ dindi ko. maanaam bu tegee galgal ma teggi. mais sëriñ mën na may nit alal Mara Mara. sëriñ ndax mën na may nit alal parce que nag. loolu problème la ci man ah. il faut nga convaincre ma bu baax a baax a baax a baax. kuy mayee alal kay day fekk nga am alal lu tax doo may sa bopp ba pare. waaw Cheikh. waaw waaw lenn dafa tey parce que dafa am koo xam ni fii la gis benn sëriñ mu toog fii mu jox ko xaalis bu bëri sëriñ bi triande ko dafa ko koy may alal xaalis bëri la ko jox te sëriñ bi maa ngi maa ngi ak reçu yi maa ngi ak maa ngi ak wave yi maa ngi ak western mu toogee sama plateau jàkkaarloo ak man yëpp mu ne ko alal laa lay may mu jox ko xaalis bu bëri ci la ko gëj a dégg joon yàlla tey jii ay onze jours la ko wax ak ay boo demee di ko fa fekk ak c'est des loolu est que loolu mën naa nekk bu dee mën na nekk wax ma ne mën na nekk bu mënul nekk nga parce que pour man mënul nekk. waaw Cheikh non nit ki nekkul na yow yaa koy jox alal yàlla suñu borom saar bu mu def ne alam nasara lak sadrak wërsëg moo ko tax a jóg. Mhm. alal du wërsëg. dëgg la wërsëg la. jeex na kon yàlla suñu borom lum mu lu mu wax rek lu am la. waaw waaye ci nan nga koy defee xaw xam nga la moo seen problème tant gisul nit ko am béjjén takki béjjén gisul nit koo xamante ni day wax ay dee. wala day wax ay yu ak yu mel noonu ñoom mënuñ koo gëm te loolu moo gën tuuti ci xam-xam loolu waaye bu la neexee beneen émission bu ñu koy def. Mm. mu indi xale bu ndaw bu toog fii mu lay wax loo xamante ni lu war a am ay ñeenti weer wala lu lu war a am suba sax ma la ko waaye mm. pour xale yi. maar de taal doon na bu ah, wax la ne la ñoom ñoom yooyu loolu du xam-xam ñu xam-xam xam lan la ragal yàlla xool sa digganteeg suñu borom lii may alal lenn moo koy tax maye dëgg-dëgg alal. Mm. mooy yow ci sa bopp ngay dox ci wërsëg mooy du julli surtout julli. Mm-hmm. ak benn ànd ak wird. sooy wird di ñaan bu yàggee suñ borom wala ni am na am na secret yoo xayet nag waaye dina defal nit ki chiffre a am lu mu amoon ci at bi day yokk. Mm-hmm. loolu man yooyu man loolu moom. da nga koy mën nga def yooyu waaye mënoo nga mm-hmm. soo boo ubbee sa néeg xaalis moom man defuma loolu. ay comme boo fekkee valise xaalis fees ak néegi xaalis fees loolu amut. waaye daal mën naa laa wax na la mën naa laa defal loo xamante ni bu fekkoon at bi 10 millions nga am at bee di ñëw mën nga am 50 millions yokkute nekk ci yow. Mhm. ndax ku yokk booy liggéey at. te amoo yokkute xoolal sa bopp waaw waaw ndax loolu ci wërsëg la bokk ci doomu aadama mhm. ay yoon yu nit ki di jaar la mu mu mën a nekk waaw. waaw loolu yënoon na maanaa nit ki mën a nekk waaw li nga wax ni yënoon na maanaa ma ñaanal nit buntu wërsëgam ibbeeku mhm. parce que am na ñoo xam ne seen der day tilim waaw ñu sang seen der set dëgg la ñu defar la alam nasara bi nga wax bàyyi rabi mhm. wala ñu defar la wërsëg mu ibbeeku bu dee ren da am cinq millions déwén mën nga am quinze millions mhm. loolu c'est très possible mais man li ma gëmul mooy boo xëyee suba ibbi sa armoire bee boo ko ibbee valise bi di nga ci fekk xaalis mais lii nga may jox loolu man gëw ma ko parce que nag gars yi na ngeen yeewu tuuti koo xam danaa la fay ma ma defal la jox la alal lan moo tax moom defal la ko boppam gars yi nañ wax nañ waxante dëgg quoi bu fekkoonte ne moom mën naa fexe yow mi nekk Amérique nga am un milliard waaye moom mu am mu defal ko boppam dëgg bu boobaa no timit kon timit nag day leer mais la ñu la la waxee ne mën naa laa ñaanal wala ma jox la wirdu boo xam ne saa yoo jullee dee ko wirdu mhm. sa bul góor sa day ibbeeku nga gëm ko nag mm-hmm. mën naa mën naa d'accord loolu mm-hmm. parce que suñu borom day def lu am na benn lépp sax bu ñuy joxe parfois mm-hmm. ñu ne ñu ne benn waay daa ñëw ci sëriñ bi ne ko ñaanal ma ma am alal fekk sëriñ bi da koo jàppee woon rek ab naaru genre dof dofam noonu rek sëriñ bi ne ko waaye jógal fii waay mu ne ko sëriñ bi ñaanal ma rek ma am am jox ma benn wirdu ma am alal alal mu jox ko wirdu man Cheikh naa ma ma ko doon léebal mu jox ko wirdu nañ la ñuy waxee soble <laughs> ci ci arab soble soble. ah. lan. basal basal basal. yaa basal la. yaa basal xaw ma na ko del wax yaa basal. yaa basal <laughs> rek bàyyi mu dem. dëgg la war dëgg gëm gi moo gëm sëriñ bi. Mhm. saa yu jullee tee yaa basal basal yaa basal moo ëpp ci bi toolu soble. Mhm. parce daa gëm sëriñ ba. wallaahi. kon loolu comme que sëriñ dana ko yaa basal mu wax yaa basal rek am ay kon yéen ñii am ngeen yurdu yoo xam ne tey mën nga koo jox nit wala kilifa yi jox ko nit tey nga gëm ko def ko yàlla ibbi la sa buntu wërsëg nga am ay affaire yi affaire mu andi waaye xëy suba rek fekk ay milliards ay milliards sama sama sama sama sama nekk gaw ma loolu pour man loolu c'est pas possible leer na waaw Mara noob bi il faut ngeen bàyyi ko mhm. parce que man ba léegi man convaincre guñ ma ci noob góor bu nopp jigéen pour mu topp ma jigéen bu nopp góor pour mu sëyal ma ànduma ci loolu xam nga tey mun naa d'accord nga ne dinaa liggéey nopp ci ñu nga xam ne saytaane moo dugg seen diggante ma dàq saytaane waaye nga ne ma ay la yéwén sama jabar la woon te daf maa respecté woon bëggoon ma lool xëy suba rek bëggatuma te jox naa ko def naa sama alal gépp ci moom il faut nga noobal ma ko mu toppaat nopp nopp est-ce que mu ngi ci alxuraan est-ce que nopp yàlla reconnaître na ko nopp ba pare. ah waaw. ñëwal yow rek laay diggu am na benn aay bu koy wax waxul wàllu nopp dëgg mais ma ma xàbba ah, mooy soppe min nii mooy diggante xol ak xol waaw. waaw loolu ci nopp la bokk. Ah, kon nit ku lay sopp bu am ci yow cofeel kon loolu mën nañ ko tuddee nopp. nit ku la sopp ba am ci yow cofeel waaw loolu ma nañ ko tuddee nopp waaw ah, waaw mooy nopp nit ki ah mooy nopp nit ki waaw ni nit ki mujj la nopp waaw sopp ci yow ba du am ci yow sogo saa yu ne mën nañ ñëw sa kër toog rek cheikh ci boppam duga bu max waaye moom ci boppam moom dafa bëgg cheikh ah, loolu bu naturel la waaw moom mën na nekk mën na nekk waaw kay bu naturel waaw léegi waaw bu naturel bi cheikh tey bu nangoo tamit faw mu def lu koy aar lu koy dëj. loo xamante ni mu toog. déedéet waaw waaw waaw. mu toog ñëwal ñëwal ah déedéet xam nga tey moom nopp faw ñu wax si. waaw man a nangoo liggéey am na. waaye noonu ngay nangoo nopp am na. ndax comme comme nit da nga koy liggéey mu jàpp rek. na xam ne tamit da nga koy nopp muy jàpp. waa waaw waaye ci ñan ak ñan am na mais lu tax ngeen di nopp laa wax. lu tax ñuy nopp man moom man lu tax may nopp man. Mm. man laa mën a wax. waaw jël man comme man maa toog. waaw ñaar mbir a tax man may noobal nit. man du ma mm. nopp ay caaxaan Mhm. ndax man sama nopp wax naa ko du caaxaan. Mhm. ndax sama nopp même bu ko nit ke raxasoo ci sàkkaraam jox ko nit ki mu mu naan ko. Mhm. bu tàggoog bu tàggoog benn jabaram ji sax jabaram bi du gaaw am jëkkër. <laughs> du jëkkëru leer laa wax ndax li nga raxasoo ànd ak moom la waaw. waaw keneen du ko soxla. wala keneen mooy du man ci moom dara waaw leer sax. man moo tax sama noob wax naa ko du ko defal xale du ko defal koo xamante ni. day caaxaan day caaxaan sama noob day caaxaan lu wér la taman man ma noob yu nit ñi yor ni di sëfaki ay li déedéet noob yoo xamante ni naan rek wala am foo ko dem def foo xamante ni secret la man xam naa ko uh-huh. waaw. waaye te loolu dara mënu koo tee mu jàpp. ndax loolu benn rawxaan jinne la. lu ñu jàng la setantal ko xam ko benn baat la. waaw benn baat kese am na am na fan pass benn góor koo xamante ni damaa woo sant ma nopp na ma man nag waaye ab tubaab la waaye waaye damaa dese gëm nopp carrément. da ko dese gëm. waaw waaye dama ko dese gëm ndax waaye nu ko sëriñ si di waxee est-ce que man nañ ko ma ne ko ma ne ko man de sama nop lenn daal naa la ko wax caaxaan su ma la defalee nop gi fii ma la koy defal nga fexe ba jox ko ndaw si mu naan moom man ma da nga xam ne lépp dëgg waaye ci sa sàkkara si nga koy raxas jox ko mu naan laaju ma sax te man sama noob lu tax mu garaaw mooy laaju ma tuur ndaw si wala tuur yaayam waaw sa tuur yow mu ko soxla sa tuur kese laa soxla ndax yow yaa jox mu naan la ilaha waaw ah, ma tuur ndaw si nga xam ko nga ñàkk koo xam yow jox ma sa tuur rek léegi boo ko defee loolu ndaw si ko baax déedéet ndaw si bu ko défend toi nag Mara da nga da nga di nga bopp bu baax nag tey mm-hmm. parce que boo ko defee loolu tey mm-hmm. ndaw si topp ko moom waaji ji doon baadoola naagu xam ne ndaw si topp na ma ndax def naa loo xam ne mënu maa baax. waa ji dekk di taxawaal. di def lu ko neex. ndaw si mbëggeelam jeex takk. mënatul dem. loolu baaxul baax na. non loolu moom. mën na nekk. waaw loolu moom baaxul parce que kii moom noog naa ko war a naa ko fii xaaral ma dem business leneen. ndaw si sol lool du tëb du mën a dem fekk na la ñu def la. waaw comme li ngay wax nii rek benn jigéen bu yàggul mu ngi benn France la nekk xaw Europe bi noonu. waaw ma am benn lii bu ma ko defal benn nopp mu jot ci fekk fekkante benn jëkkëram ji waaye dañoo waaye da ko tàggoog moom mu dem waaye jëkkër ji waaye daan faral di ñëw di gis benn doom yi day faral di ñëw di gis doom yi léegi nag mooy ci diggante bu jëkkër ji ñëwee mooy di gis di gis yi mu fexe jox ko mu naan bàyyi ko dem jëkkër ji benn dafa ñëw toog ci bunt bi toog lànk ne mooy du dem lànk ko dem moom moom woo ma ne ji na ñëw na waaye waaye dama ko not fi mu toll foofu laa koy bàyyi mu lool ma soo ko dugg ma ko déet comme yow waxoon ne da bëgg moom nekk ci yow jàmm amaat ci yow comme ñëw ma nga jox ko loolu ba mu nangoo nekkaat ak yow man sama nopp gi du caaxaan fexeel nag ngeen juboo ngeen nekk si jàmm ndax sëy bi mën a nekkaat comme mais waa ji bu dafa jeex ci ndaw si si moo tax mu raar ko moo benn liggéey jigéen ñi tamit dañuy doxal ba nga takk leen ñu change jikko ah waaw loolu loolu am na doo leen nobati. waaw loolu loolu am na xam nga loolu yëpp lu koy waral. mbiru seytaane ka la jëkkër a jabar fu ñu nekk rek benn seytaane waa waa da am doole dasi am walla moo tax moo tax nopp am waaye waaye loolu moo tax nopp am jëkkër ak jabar. Mhm. avant ñi bëggante. Mhm. avant ñi def euh, sëy bi waaye da ngay gis dañuy bëggante. nekk mooy ñaar ñoo xamante ni. nopp amu fa dara amu fa ñu bëggante mooy ta yàlla rek tax te yàlla tax waaw léegi nag buñ xasee ba ñëw foofu seytaane def liggéeyam mm-hmm. liggéey bu muy def mooy jaxase seen xol bi mm-hmm. ñu meroo mm-hmm. léegi nag nopp ñu ngay def day tax benn seytaane mooy du man ci ñoom moo xam mbir mbir yu leen di téye moo xam seen rawaana wala jinne yu mel noonu day génn si ñoom ba set wecc day tax ñoom ñaar chaque jour seen xol yi min nii lay nekk. Ah, mooy seen xol yi saa day gisante waaw day jàkkaarlonte. yàlla waaw d' accord d' accord moo ah, te man noob wax naa ko man noob moom du ma noobal ko koo xamante ni caaxaan la tax a jug wax naa ko ndax man yooyu taxu may jug. boo xasee ba noob jeex na waaw su ma xasee ba noob jeex na waaw ah, du ma noobal mooy koo xamante caaxaan ko tax a jug. d' accord loolu moom lu leer pour nit bàyyi ko xel. Hmm. beneen bi ma dugg ci Aba. am na benn vidéo bu ma gis sëñ bi nekk ci àll bi euh, déedéet pas bu àll bi sax muy ñu ñu ñu rey giléem tegal ma ko parce que dafa am lu ma ko ci bëgg a laaj benn giléem mi ngi tëdd beneen giléem bi ñu rey ko def ko ay saam te man version yi may dégg mi ngi nii giléem bii ngi tëdd xoolal bii ñu rey ko def ko ay saam lii yow la uhuh. man maa ne la vidéo bi il faut ma teg ko nga wax ma parce yéen seen i version dafa bari. parce que dañ naan la sëriñ bu la bu la bu la bu la tuurloo deret. faju la. wala sëriñ bu la bu la saraxaloo yàpp. bëri na de. ñu koy wax. wala sëriñ bu lay reyloo nag abaa andil ma nag bu ñuul bi nga teg. nag bu ñuul tamit gis naa la nga teg ko fi andil ma beneen vidéo bi nag bu ñuul. ñu ne la loolu ku la koy defloo du sëriñ du alxuraan. maanaam affaire nag yu ñuul yii ay affaire yu jinne lak ay affaire tur deret. am na ñoo xam ne ci yéen dañ ko interdire catégoriquement. dañ ne sax xaraam na. yow nag ngay kilifa. di ndaanaan ci réew mii man xam naa la. nga ñëw def lii yow mi ngi nii yaa ngi nii wane na ba pare di wane na yaa ko def. léegi di ma wax la ñee wax moo am wala la ñee wax amul. lii nga koy def pour lan la. tey Cheikh. Hmm. waaye tour deret sacrifice moo si baaxul. Hmm, hmm. boo xamante ni tour deret sacrifice bu nekk sa bu nekkul. wut ci jaamu yàlla wala wut ci leneen loo xamante ni pour say mbir. Mhm. waaye bu nekk sacrifice pour luy bon baaxul. Mhm. waaw waaye tout deret loolu waaye ci yeneen yàlla Ibrahim ba léegi la nekk waa ci xarba waa ci Souleymane. Mhm. loolu waay waaye moo tax ñëppay tur der yow Cheikh ñaata nit ngay gis nit judd waaye ñu gis kenn judd Oh, ma ma ci fi mu toll ne ma te tuurluñ ko deret waaw waaw ñun ñu rayal ko xar jeex na waaw jël yàpp ba togg ko ñun ñu lekk jeex na d'accord na loolu lu ko waral waaw benn pour mbir yoo xamante ni la ñu ngi koy toppee ci maam Ibrahima waaw ci maam Ibrahima d'accord na loolu léegi loolu mooy waral benn tuur mhm. ndax nit li muy tuura deret rek mhm. am na lu waral loolu lu waral loolu ñett ñaari mbir ci am mhm. am na lu nekkoon ci moom wala am na lu ko nit def wala am na lu def benn kaaraange ci boppam boo xamante ni bu am doole ci moom. waaw waaw. muy gilem bi muy gilem bi. ma gilem nit kun daane loon bugg la yégalaat la. Ah, kuñ daane loon nga bëgg ko yégalaat. bëgg ko yégalaat. waaw ah, kon daal ci gilem nga ko mën a def. moo ci gilem ma ngay def ay na nangami kilo lu mu am ci ay lu mu am ci ay at. nga def ko ci ay ay saam saam saam joxe ko. Ah, waaw man mais man d'accord ma loolu nit ñi naan yow waroo tuur deret ak waroo tuur ma te ba nga juddee yow ñu tuuroo la deret waaw loolu nga teg ko fan dëgg dëgg waaw ah. nga teg ko fan sacrifice moo baaxut dëgg dëgg waaw sacrifice moo baaxut nit damay woon naa ma sëriñ bi nee na war maa tuur deret ma ne ko lenn la ñuy wax am na ñu war a rey am ñu warul rey waaw comme ni ngay demee serage fekk ñoo xamante ni mooy mooy a waaw kay professionnel tey yow tey boo tiimoon tey di fees boo toogee tuuti da ngay dagg mhm. yow waroo ray dara yàpp bi yëpp lay bi jeex na waroo ray wala nga dagg loolu lu koy waral mooy yow ci sa bopp ma sa rawxaan yi nangut ngay tiim dara du ko ray sa bopp mhm. loolu moo koy waral waaye ay ay kii war kenn warul tuut deret ak yooyu déedéet loolu amut mais nag bu ñuul bi tamit ay ndëpp yooyu laa koy gis ay affaire de rab jël nag bu ñuul dugal moom ba ci xam nga man maaraay yi ma lay wax yi dama koo xam waaw dëgg la man dama fi feebaroon dof mhm. maanaam sama feebar boobu daf ma dofloo en fait. Mm. lu ma nit wax ma gëm ko. Mm. waaw. situation bi mu demee woon la quoi. dafa mm. doyoon waar ci man la. man nit jël na ma dugal ma ba ci digg géej ray fa nag bu ñuul kukk. nee ma ay affaire de rab la ay affaire de nangam après laa xam ne c'est des conneries. Mm-hmm. du woon loolu yëpp. <laughs> parce que man xam naa li ma feebaroon après quoi. dëgg léegi lii nii moo tax ma ne lii nag bu ñuul bi yii ci ay ndëpp la ak ay affaire de rab la. wala non non bii du rab sax bii du rab. Mhm. bi dafa nekk koo xamante ni. yëkk bu ñuul kukk la. waaw bu ñuul kukk lii ci àll bi la mu ngi lii mu ngi nekk kaarang la. ba tey lii mu ngi nekkoon benn nit koo xamante ni dafa am benn liggéey bu ko def. waaw liggéey bu nag lu lu lu ko def nekkut galaaj goo xamante ni galaaj guñ ah, bu lii nu ma ko mën a dindee galaaj laa mën a dindee. Ah. kon daal ku nekk daal ak loo ko mais ba tey lii yëpp araamul kon. déedéet ba tey araamul man loolu ma ci intéressé araamul. déedéet ba léegi li araamul li araamul man Cheikh. waaw waaw daara laa yor moo tax man man man moo tax man man il faut ma woowaat la nga leeral. man daara laa yor man bokk ma ak. mooy sëriñ ji di di aba andi ma beneen bu mu nekk ci àll bi am lu mu doon suul. waaw ñëwal. waaw lii. Mara. lii ci àll nga nekk. waaw. am na loo bind. man yow yow yow da nga am fit sax. ah li li nga suul fi lan la. waaw yii nii ay noob la yenn yi. noob nga def fii. Mhm. noob yoo xamante ni am na am na benn yëre nit ñaar ñuy bëggante si seen i mbir. nga suul ko fii nga suul ko fii fii nag eh, ci kaarang la tamit. mooy fii kaarang la fii boo fa demee chaque jour day am ndox foof noonu bërëb foofu noonu fii nii mooy tax benn kilifa gu rëy jaar na fii. Uh-huh. jaar na ci diggante fii nii waaye toog na fa sax saay du julli. lii dex la bu nekk foofu. d'accord. waaw biir Kaarang. te lii alxuraan la. waaw. non ay non li non jinne la ba tey. Ah. li ay rawxaan ay mbiru ay baat yoo xamante ni wàllu lu jëm ci tal sama jinne la. affaire jinne la. Mhm. moom la ñuy def fii suul ko waaw man Cheikh nopp <laughs> nopp moom lu ma si wax nit amul hmm. demal ma ñëw waaw nopp moom amul sax demal ma ñëw am na suñuy bëree bëree bëri yoo xamante ni du ma ko wax kon lii ay turu ñaari jëkkër ak jabar ak yooyu nga suul fii quoi ak seen yére seen moso ñoom ñaar boole leen boole leen suul ko taal sa oto dem sa yoon <laughs> léegi ndaw si bu jékki-jékki na butul wala waa moom c'est fini non man moom man moom seex lu ma def. c'est fini c'est man amul sax ay. ca ay waxtaan ak moo tax nag moo tax d'accord naa mais kon dafa doon am lu am. ñoom ñaar ñëpp ñu toog. loolu man laa bëgg ngeen def sax au moins. jëkkër ji toog jabar ji toog nga ne leen bis moo leen boolee dangeen ngeen màggete ndoo yéen ñaar. nangu ngeen ñu ne waaw nga def li ngay def. waaye kenn rek nga ñëw te kenn ki ñëwul. maara loolu bàyyi leen ci xel. man daal loolu moom sama combat la. Mm-hmm. ndax damaa gis man man nee naa dama am xarit bu noob rey. moo tax man nopp ma ragal ko man ma tiit ko. Mhm. en toute sincérité. Abba jërëjëf ñu continuer ci waxtaan bi. Mhm. Mara. Mhm. musuma laa dégg ngay wax ay révélation oh, musuma koo dégg. ah man de musuma koo dégg te musuma koo defal. fii tamit dëgg la waaye. mënoo fee ñëw ba dem te duñu waxtaane actualité réew mi. waxtaane politique ci réew mi. parce que tey jii man de waxuma la nga ma wax man nag entre sa xam-xamu nii ak sama xam-xamu nii de waxuma la comme ñuy analyser nii nañ ko bàyyeeg journaliste yi yeeg. Mm. ñooy nekk ci plateau débat la ya. dëgg la. mais bu fekkente ne yow ci xam-xam ci baatin. Mm-hmm. ëllëgu Sénégal am na dara loo ma ci mën a wax. ba mm-hmm. nga def révélation mm-hmm. mais ci sa xam-xam baatin. lan nga gis ci situation politique bu réew mii. président bi jékki-jékki na ne ok dañ koy pousse. booy taal lañ benn fan ñaari fan. Mm. assemblée national voté na ne le 15 décembre lañ koy yóbbu. Mm. ñu def élection. Mm. lan nga gis ci baatin ci situation réew mi wala gisoo ci leen. non ankay rek mooy comme lu ma ci gisoon. waa émission toog fii. waaw nga ne ndax gisoo kii falu. waaw ma ne la déedéet. waaw lii nga ma wax. waaw ma ko gisul kii falu nooy gisee élection saa dina am. dëgg dëgg. am déet. waaw Cheikh chaque jour bu ñuy wax day laaj nit ki ñoom ñi analyse bu baax mooy seen wax. Mhm. man bëri na ñu may ñaanal ñu nekk ci état beeg ñeneen ak ñeneen ba si ba si ay magistrat man moo tax leen daal naa ko wax élection wax la yu mel noonu man gisuma ko jamono ji man gisuma ko fenn. gisoo dara lu jëm si dafa dafa lëndëm. si dara te gis lu ma gis man mën a gis nag am na suñoo xam ne nen dem defaru ji dafa seen bopp. lu ko mhm. mooy da nga gis ñeneen ñu téye ñoo xamante ni moom moo ñu jege ñooñu. Hmm. waaw moo ñu jege ci biir mooy te teg benn réew mi ñëpp leen jàpp ci gàllaaj hmm? réew mi ñëpp leen tënk ci wàllu gàllaaj moo tax nit yëngu fi du gaaw am. du yomb kan moo kan président moo tënk réew mi. ah <laughs> moo daa ah, ko non xam nga xam nga suñu premier émission bi dama ne la président day seetlu dafa am ñu koy seetal. waaw waaye koo gis ne waaye dina falu ma kooku du falu. wala benn mbiri mën naa bañ a am waxoon naa ko fi. waaw waxoon nga ko waaw. nga ne ma tëj na ñu bëri. waaw ay kilifa yu bëri dal tëj ñu koy seetal ko di ko ñaanal. jeex na léegi yow lu mel noonu moo tax ma ne la képp ku biddiwoom feeñ mu nekk président. ñee dañ koy gis. ñee ñee dañ koy gis buñ ko gisee rek. fay moo xam biddiw bi day fay walla affaire du am waaw ñaara si am bu leen arrangé wut affaire mën naa bañ a am loolu lu koy waral mooy lu bëri ñoom ci lu ñuy xoll moo tax nit ku nekk na nga xam ci say mbir noo si ñaanloo. surtout jamono ji mooy ku si dugut sa bopp ñoom ñooñu da nga gis ñeneen ñoo xeeti da nga gis ñu téeleen ñu bëree bari bari mm-hmm. waaw waaw moo tax man chaque jour ay mbir Ousmane sonk mm. bëgg naa ko lool sopp naa ko nag waaye ah, man moom moom nga àndal yow non man ah, am nga titulaire man citoyen nga garaawul euh, ah. tey ñaar affaire am man du ma toog dama laa bëggoon dugal rek waaw damaa man waaw ñëw naan moom laa àndal wala lii ndax xam ndox loolu mm-hmm. man man man ku ne may ñëwal. Mm-hmm. bëgg naa ko na sama xol. Mm-hmm. ndax nu mu bëggee réew mi. Mm-hmm. sopp naa ko ma ci nu mu soppee réew mi. ku fi toog tamit même chose ci ñoom ñëpp. waaye nag buñ gisee li yàq réew mi luñ mën a def toog suñ kurus di ñaan. loolu safaan boobu bañ a am. lu gën suñ borom defal na ko ci réew mi. waaye duñ ci wax dembaak kum ci man di doon ndax nit moom boo boon ñaar affaire am. nguur suñ borom moo koy joxe. Mhm. yàlla suñ borom moo koy joxe nag képp kum ko jox nga siy xeexee ab doole wala da ci wane kattan wala doole loo ci mën di wane. Mhm. bisa nga jot suñ borom benn. nangu ko nangu boo xamante ni nangu bu mm. métti mm-hmm. waaw wala mu wala lii ko jaar la ko mais mbir boo xamante ni yow da nga rëccu mm-hmm. lu bëree bari bëri ne li su ma yegoon daf ko bu mm-hmm. yàgg fekk na ma su ma yëgoon weesu na dëgg la te man xam naa loo xamante ni bugguma ko wax ci ay média waaye xam naa ne ku moom ku yeboo daal mm. nit ñi nun amee xol bu métti nii nit ñi sax dinañ toog ba yërëm kooku xam naa ne dugg doo ko bëgg wax ci ay média parce que li ma la wax la am na koo xam ndeysaan daf maa wóolu mu ni ma yow laa wóolu te bëgguma nga boole ma ak Cheikh Akim kese damaa bëgg nga yóbbu ma ba ci moom ma wax ko wax ko sama soxla kooku ma rus ko muy sama nit parce que man du ma yóbbu ci nit sëriñ benn yoon laa ko ma si def muy ci yow ma taal sama oto ñëw sa kër andi ko ay six heures laa fa ñëw ba ay vingt trois heures la laa lay doog a gis. mu am ay oto yu 4 x yu bëri yi ma fa gis. nga ne ma ñii dirigeant football boobu avant Sénégal Côte d'Ivoire bi. nga ne ma dirigeant football yi la. te yow nag da ngaa mën ay affaire football ndax coupe yu bëri gagné nga ko. wallaay ñu ne ma dañ ma bëggoon ma ñaanal leen ci mais du ko def. parce que lii am ci match bi ma ne la déet lu xew mbaa jàmm. nga ne ma noo garaaw nañ seetaan ba suba rek. kon boobu xamoon nga ne Sénégal day ñàkk yow mii. di nga génn ne Sénégal day ñàkk match bi. mais musuma gis ay lay yéen gisuma ko ci benn réseaux sociaux nga toog. naan lee am suba wala lee am ginnaaw suba. parce que c'est pas sûr. mën nga gis dara nga wax ko. keneen gis li nga wax ne dëgg la mu wëlbati ko. mu contre ko waaw contre ko leneen am. ñu gàcce loolu yóbbu la vaar boo boo waxatee kenn du la gëm. Mhm. sëñ bi loolu nga jàpp baax na. bàyyi leen kook suñu borom ndax moom moolaan la lii mooy am suba kenn mënu ko fexe ba mu wëlbatiku mel nu moom kese la kon ngal la sëriñ yi nañ ko bàyyi suñu borom waaye toog fii diw dina dee ci at bi yeeg surtout looloo gën a dangereux wallaay ab théâtre kat bu mag dina dee nga tiital théâtre kat yëpp <laughs> musicien bu mag dina dee nga tiital musicien yu mag yëpp wallaay dëgg la mag dina dee nga yëpp mhm. waaye chaque année ay théâtre kat dee mais te yow mu koy wax loo ci loo yokk. dara la moo yokk ko dara et puis non c'est du n'importe quoi sax. Ah, ah. parce que chaque année ab théâtre kat dee. Mhm. chaque année musicien dee. Mhm. chaque année politicien dee. ñun ñooy dee par at. loolu kay dafa yomb man bu ma neexee ma woo léegi réseaux sociaux yi leen ma wax leen xew fii ak déwén. Mhm. am na yoo xam ne da lay wóor ne lii dina am. donc nañu loolu ngalla. ça sert à rien du tout du la yokkal dara au contraire sax dañ lay jàppee ku dul wax. dëgg ku dul wax dëgg wala wala wala bi ñëw ci. Oh, oh, oh, voilà léegi xam mission. en fait yéen sëriñ yi vous êtes ay missionnaires ngeen. mooy jàppale ay doomu aadama ñaanal leen muy nangu. ba pare wërsëg bu leen di yàlla di jox ngeen ciy génn asaka di def social. yow yaa ngi ci social yi. dafa mel ni gis naa la abaa tegal ma vidéo boobu nga wax ci social bi. c'est important social. waaw Cheikh ay ceeb nga jël ko. Mhm. waaw. waaw xam bi rek. Mhm. waaw. Mhm, xam nga lii nii Cheikh lenn la. man ndaw laa. aajo jaam yi faju waaye jaral na ma may sacrifier wu lu ma am ci ab lii mu néew wala mu bari ma jël ko jox joxaat ko doomu aadama yi waaye nag du ma ko joxe ndax ay ngissal wala yi mel noonu du ko def. waaw man yooyu nekkuma ci. yu sëriñ si nekk ak yii nii newu ma ci man awma jot boobu man hmm. man wax naa leen ko yu sëriñ si nekk ñii ñëpp yàlla xam ne ne seex benn ku la si neex invité ko mu ñëw toog fii mu jël fooy ma jël fooy ma bind fatiha mu bind fatiha nga lakk fatiha nga nga jël fooy bi taal ko bu waaye waaye su ma fooy bu tàkkee ma bàyyi ñaan hmm? wallahi waaye pour wax la ne la suñ borom dafa am lu mu def ci ñun waaw loolu suñ borom moo ko def ci ñun waaw kon lii yëpp dañ ci sant yàlla lii mu ngi nekkoon Kaarang la tamit ba tey. foofu bëri na nga bokk ak ñoom da nga bëgg fa nga dëkk. waaw foofu foofu foofu dama fa am kër. Ah, dafa am kër da am kër fa Kaarang. Kaarang moo tax la Saalum. Saalum la ak Touba. Saalum la rek. waaw ci Saalum la bokk waaw. mooy ah, mooy diggante frontière Gambie bi rek. Ah, hmm. ko defee. muy muy social bi. social waaw lii daal lañ leen di xaaree marabu. Hmm. social jox ñin ñi lekk jox ñin ñi naan. social aussi ci ñiy ñëw di leen seet si. dëgg parce que gëwuma sëriñ yu naan ku andi 1000 francs ma jox la garabu 1000 francs boo andee 2000 ma defal la bu 2000 boo andee 1 million ma defal la bu am na fi. man gëwuma loolu. nit dina ñëw ci yéen. nga defal ko ngir yàlla te yàlla tax. loolu social la. Mm-hmm. donc nit day jaaxle. moo tax xanaa xamoo Sénégal yi loolu moo tax yéen sëriñ si yow boo ko ca yow yow jàmbaar nga. parce que amaguma benn retour bu négatif ci yow. retour yi ma am yëpp c'est positif. Mm-hmm. moo waral ñu invité la bitim réew ngay def tournée internationale ñëpp ñëw di la fekk si. Mm-hmm. mais am na sëriñ ju nga xam ni dañuy naxe te sénégalais dañoo neex a nax fi ñu toll nii xam lu tax. Mm-hmm. boo jaaxlee dangay ngay neex a nax. dëgg la lu wér. lii la la Jojo man maa ngi gis nga ko gis nga Jojo naa la maa ngi États-Unis mais billaay man maa nëbbagum tur bi. gis waaw man maa nëbbagum tur bi <laughs> pour ñoom moom dina xam. Mhm. dina xam ki ko def dina xam. su ko defee mu delloo ko xaalisam. wala mu ñaanal ko. da mu ngi nii foofu il m'a arnaqué lekk sama cinq millions CFA. Mm. ah tey seen euh, euh, seen xaw ma tese yu ma ko envoyé waaw SMS. Mhm. waaw te saa yu ma ko envoyé SMS. Mhm. wala ma woo ko. mooy du tontu du ma faale. Mhm. te foofu sa émission bi laa ko xamee maara day taali xam nga ne kii gàdd na sama bàkkaar. barki alxuraanul karim kii tooñ na ma. te dama lay wax benn affaire. gis nga message bi ma def nii efface tour bi. am naa reçu yi de. reçu envoyé. mi ngi man. Wave yi. Western Union bi. wala Orange Money yëpp envoyé nañ ma ko. billaahi mi ngi sama téléphone. man xam naa kan la xam naa lépp dama koy def nii pour le moment chaque émission rek dinaa def benn kii ama amal naa ko àq man mhm. maa ko tooñ parce que li ma wax ci beneen message teguma ko sa xam lu ma wax mhm. sa jëmm jee tax ma gëm ko mhm. ndax xamewuñ ma caaxaan man Sénégal kenn xamewu ma caaxaan man tukulóor laa man bundu laa dëkk ñun suñ fi ñu jógee xamuñu caaxaan dëgg kon sama jëmm ma tax ñu gëm ko mën nañ koo gëm nag man neen ma gëm ko ci xam-xamam mhm. waaye triant mënu ma koo xam képp ko ma fi teg am nga xam-xam mais nga triant man mënu maa maîtriser ne triant nga wala arnaqueur wala naxakan nga mhm. dina delloo xaalisu jàmbur wala ma weer ko dootul amati benn client te man mënu lu ma dara mhm. marabu jërëjëf bég naa ñoo ko bokk Cheikh wala amu solo émission bi neex na dal na xel yet bi dal na mbaam mi fa mu ko daan dal yow heure boo fi ñëwee mu neex. dëgg ñee may woo naan ma wool Cheikh ak Kib. Mm-hmm. dafa dëggu waxtaanam intéressant mm-hmm. te ay la yéwén nag ma la ciy gërëm di la sant. ndax saa yu ma la woowee nga ne ma Cheikh sama xarit nga dinaa ñëw. dëgg la. kon jërëjëf. jërëjëf ñu bokk bég naa. incha am na benn témoignage sax boo xam ne booy moo nekk Amérique def euh, defal la ko xaw ma bitim réew defal la ko fii dinaa ko teg ci émission bi. Mm-hmm. mais li ma bëgg rek mooy nga tëj. nga tàggoo. ñaanal ñu. ah kii xam naa sa nit la wax ju daw yaram la wax ah jaru sax ngay génne voix bi aba mais wax ju daw yaram la wax gërëm la sant la ne la jàmbaar nga ne la bàyyi na la yàlla ndax li nga ko defal yépp gis na ko ku la ku la ku la ku la xamul da laa ñamagul lii la wax ci ci ci ci ci bi Mara ñu tëj émission bi waaw Cheikh waaye dañuy sant yàlla rek di ñaan saa su ne yàlla na suñu borom bi li mu rek dañ koy defaale de dama koy bind non Cheikh man su ma soñoon tey numéro bi wala non dama koy bind xam nga dama ko jox joxe fii de non non non <laughs> kon bi ngay bi ngay wuyoo téléphone def def ko ci rek maara waaw d'accord kon kon kon bàyyil kon bàyyil loolu waaw ah, baax xam nga lu tax loolu Cheikh mhm. lu tax may wax benn numéro bi jarul lii nit waaye dalay woo du wax lu am bopp lu am leen nga coupé ko tama man wax naa la leen man bokkuma ak sëriñ yooyu waaw man wax naa ko man aw ma jot boobu nga coupé ko rek waaw wallaahi la wax daal lu amul bopp amul geen nga kuppe ko jeex na waaw waaw ah, waaye daal ñu ngi kontaan bu baax ci émission bi. ndeysaan jërëjëf di rafetluwaat bu baax toog ak yow. dégg naa di ñaanal ñu fi nekk ñëpp fii ci télé bi yàlla suñu borom gën a yëkkati bu baax. amiin amiin yaa rabbi kontaan ci yéen tamit bu baax a baax a baax. ndeysaan ñoom Aba ak ñeneen ñëpp. waaw ñoom Aba Aba Aba nag am na lu muy waajal xam naa bëgguma cee dugg sax. waaw waaye dama koy annoncé noonu rek ma xam ne xam nañ leen jours yi moyen. incha allah waaw incha allah waaw mooy nuyu sama sama gars yi xamante ni. ñoom nga àndal ay kilifa leen waaw ñu ay sëriñ leen tamit. kii mooy kan baax nduru na ko de kii nduru nag sëriñ moom ku waaye ku bëri xam-xam la koo xamante ni bu soob yàlla bëgg naa doo tudd turam sax gërëm ko wala bëggul ko tudd turam bëggul ko tudd turam ndax benn waa kilifa la moom tamit bu baax mhm. ak sama waa ji xamante ni mbir yu may am Dakar fi yëpp moom moom laa koy yónni fii moom nga koy yónni ma koy dox si waaw ma koy dox wallaay bu baax a baax bëgguñu ko tur mhm, waaw ma may nuyu bu baax. yow moom dinaa la baab ba nga ñëw yow. <laughs> incha allah sol lu bële mm-hmm. dina ñëw sama émission bi bu soobu yàlla. incha kii ma gis nii. Mm-hmm. am na lu ma xam de. waaw moom ku am xam-xam la. dinaa la gëstu de am la. dinaa la gëstu de kàddu bu baax waaw waaw. Mm-hmm. ñu ñu nekk Gambie yëpp. ñu nekk États-Unis Angleterre. ba Canada fu ne waaye di leen nuyu di baax. di nuyu suñu benn nit ku baax koo xamante ni. Amérique mu ngi. mu ngi ba France tamit. waaw waaw waaw da lay sant di la gërëm Cheikh. ndeysaan fan yii passé dama jékki-jékki gis ay parfum yu bëri yu ma indil. ah wallaahi yónnee ma ko. ndeysaan waa ji jigéen ci baax. tamit ah, di ko ñaanal bu baax yaa nag suñu borom dafal taxaw. ak ñu fa nekk ñëpp. bu baax di nuyu commandant. wax naa borom oto bi tamit. waaw non waaye déedéet mais tur bi jëru waaw d'accord garaaw non bàyyil noonu wala waaw moom ti maa nuyu si États-Unis mhm. di ko nuyu di ko ñaanal jàmm baax ak fépp foo xamante ni mbokk ma fa di ko nuyu di ko nuyu ko ziar commandant moom nee na del wax moom moom moom naay wax commandant rek man <laughs> di ko nuyu bu baax di ko euh. ñaanal yàlla suñu borom gën a yokk liggéeyam yokk leen bu baax euh, gën a taxaw ñaan ci réew mi jàmm ñaanal ko fépp fu doomu aadama nekk numéro bi waaw waaw numéro bi Cheikh 77 waaw 143. 143. waaye wa 79. 79. 40. 40. Mm -hmm. 77 143 79 40. Mm -hmm. Aba wala Modou. da ngeen ma koy bindal commencement émission bi. bu émission bi demee dix minutes ngeen defaat ko ci mhm. bu demee ba ci digg bi ngeen defaat ko ci ba ci fin beeg yëpp numéro bi nay daw ndax njëriñu askan wi la waaw waaw waaw léegi waaw ba tey loolu moom yow la rek xam nga yow <laughs> la ñuy woo man la ah, bi kan la tey commandant waaw commandant la ba tey tamit am ah, man de xam naa ne commandant tamit jaaxal na ma waaw commandant ma suñu lépp la wax dëgg yàlla da nga koy ñaanal rek yàlla suñu borom gën a yëkkati soxna si <laughs> loolu daal bëggoo cee wax. waaw bëgguñ cee wax incha allah yàlla baax jërëjëf kontaan naa yal na yàlla def jàmm fay. amiin amiin bokk baax. ngay joxaat rendez-vous Sénégal yi ne ci ñëwaat. incha allah bu soob yàlla waxtaan ak yow dama ci sawar. bu soobee yàlla waaye waaw dinañ si ñëwaat. incha allah beneen jotaay boo xamante ni boobaa. bu gën a yaatu fekk date tournée yi gën a fixé wu. waaw incha allah ñu def ko incha allah. bu soobee yàlla bu soobee allah. kon waa Sénégal seen émission ngi noonu Jojo et Ses Maras à allah